وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يمام وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهين من الخيرات يمام واصرف بنا نهج رشد واكفنا سللا وكلنا بالنوى الشيطان salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi ginnaaw bi leen nuyoo ku ci nekk sa tur ak seen sant xam ngeen nag ni Amsa TV mooy télé askan bi ñoo ko digga woon dañ koy topp ba mu jeex tey nag di 18e safar di dëgg-dëgg bisu màggal bi biñ xëyee ba léegi ñu nekkoon ànd yéen direct fee si jumaa ji si cérémonie officielle bi biñ fi jógee nag waax su nañ ba fii nga xamante ne mooy ndaamaatu fekk fi kenn ku bokk si njabootu sëñ faalu muy sëñ Seex Oumy Mbacké bi nuy def ànd dugg ci biir jël baay Fall yi boobu ba léegi yéen ngi dégg si kër yi ñu dem déglu turu yàlla nga xamante ni ñoo ngi koy tudd ci biir avant ñuy jàll di gis jëwriñ bi si biir incha allah. bokk internet yi gis ngeen nag biñ jógee si Baye Fall yi nga xamante ni booba léegi ñoo ngi tudd turu yàlla ñoo ngi ni taxaw ak jëwriñ Omar Gueye muy kenn koo xamante ni sëks na si sëñ Cheikh Oumy Mbacké di kenn ku bokk si njabootu sëñ Fall jëwriñ ñoo ngi lay ziar. waaw alhamdulilah bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di delloo siyaar bu baax a baax di leen fay nuyoo di leen wax tamit dal leen ak jàmm ci bisu màggal gu tedd gi nga xam ni ñu ngi ko bokk di ko defandoo. tey nag di cent deuxième édition tey nekk cent deuxième édition bu màggal Touba ñu ñëw fii Ndaamaatu seet si Serigne Oumy lañ lan nga ñu mën a wax ci màggal bi. waaw alhamdulilah li sëriñ bi di wax naan màggal gi li mu dégg ci Cheikhul Khadim moom rek la ko mës déggee mooy kaay leen sant la ma yàlla kon dañoo ñëw ngir sant te nit su ñëwee ngir sant daf ci ñaan yokkute. kon yokkute gu wér moo ñu fi tax a ñëw ñu ngi santale Cheikhul Khadim yàlla te mu war ñu nag ni mu waree képp koo nga xam ne rek mbindaa foon nga te suñ borom bind la. ñoo ngi ziaraat bu baax a baax a baax xam na wax ci bis bi dina jafe dina yomb ndax euh, comme niñ ko xamee rek day bis boo xamante ne nii jëmmi sëñ Tuubaa ci jëmmi boppam moom moo ne woon bu bis bi ñëwetee nañ ko ci santale yàlla te wax dëgg yàlla. Euh, at yi passé taxawaay bi rafet na lool wax dëgg yàlla kon noonu ñu ko daan defee at ci at yooyu passé rek lañ ko fas yéenee di defee biñ xëyee wàcce nañ kaamil euh, jàng ay xasida daal di def sikkarulaa loolu lépp euh, ngir jagleel ko bis bi biñ ci jógee tamit daanaka ñoo ngi ci bernde yi waaw ñoo ngi ci bernde yi te noonu lañ ko fas yéenee jàppe ba bis bi mat ci jàmm. jërë ñu am luñ seetlu nag gis nañ ne Mbacke saay bu nu tuddee xasida yi jàng alxuraan ay xéwalam dal ci dëndam. Hmm. lan moo waral mbégte boobu. waa xam nga murit dafa am lu spécial. murit li spécial li mu am. mooy euh, daanu. waaw loolu ku ku dara newut ci sa xol doo ko def. li sëñ Fallou waxoon ne boole naa ko ci faratay suñu borom yi mooy tuur xéewal dañu lay wax sax ne la nit suy jàng alxuraan wala muy ñaan ba xéewal wàcc maanaam ndox wala tooy-tooy loolu day signifier que ni ñaan gi nangu na sëñ Cheikh Oumy Mbacké nag taalibe la bañ na ba ci biir kër Cheikh du Fadal dañ koy wax Baye Fallou sëñ Fallou loolu nag li ko waral lii dal murit yi moo koy dal jullit su déggee alxuraan dënnam dafa war a yëngu murit su déggee xasiday Cheikhul Khadim yi dënnam dafa war a yëngu. waaw xañ na ak bëgg sëñ rek. <laughs> ndax euh, dafa am loo xam dafa sedd xol lool dafa sedd xol ndax yii ngeen di def yëpp ñun ngeen koy defal te boo leen ko defutoon ñun lay war kon ginnaaw suñu borom na ñëw ak yéen ngeen ñu koy defal te defin wi ngeen koy def tamit wax dëgg yàlla euh, sedd na xol ndax ci yar ngeen koy defee ak ci ay teggin kon loolu rek wax dëgg yàlla képp ku ko suñu borom jegleel te nga xam ko bu bu bu loolu dee am rek. il faut sa xol dana sedd ba booy génnee ronkañ sax wax dëgg yàlla doo ko tey moom nag ab taalibeeb sëñ Touba la ndax sëñ Touba rek la bëgg sëñ Touba lay xeeñtu te képp ku mu gis ku bokk ci sëñ Touba bët boobu lay xool ci yow. kon xañ na loolu yéeg yëg bu muy am la rek ci mbokki taalibe yi ci seen taxawaay. ak buñ nekkee ci kanamam. niñ koy joxe yitte ak niñ koy joxe ak yëg di wane seenu bëgg ci kanamam xañ na loolu moo sedd xolam moo tax muy muy muy ay xéwal wax dëgg yàlla. <laughs> sunu maam ja sañ Fallou yal na yàlla yokk ay leeram. amiin nekkoon na koo xamante ni ku fokkoon askan la. ku hmm. fonkoon ndaw la. Hmm. da daan toog naan kaay leen gis ma seen soxla. Hmm. même suma si mënul dara sama boroom dina ma rusee sama nopp yi ba fajal leen seen aajo. ak jamono fu mu toll tey la leen di jooy. waa sant yàlla. sant yàlla mooy li Cheikh Mamadou Fadal waxoon Cheikh Mamadou Mourtada. ne li matoon a def yëpp Cheikhul Khadim def na ko la matoon a wax yëpp Cheikhul Khadim wax na ko kon léegi li fi des mooy partage partage bi mooy lan lu waay tani nit ci xam-xam mu dimbalee ko ko lu waay tani nit ci am-am mu dimbalee ko ko li ñu war mooy li Serigne Touba waxoon jàng alxuraan ñu jàngal ñu xam-xam ba noppi ñu tarbiye ñu su ko defee ñu mun a dund ci àdduna bi nga xam ni euh, li ñu fi indi du lenn lu dul jaamu yàlla te kennal ko. Mbacke sa maam ja Serigne Fallou Mbacke. Mhm. yal na yàlla yokk ay leeram. Mhm. bokk na ci ñi nga xamante ni yu yi ñoom leen gën a bëgg ba suñ jaaxlee sax dañuy tudd ci turam. Mhm. kon tey lii di 18 safa baax na ñu. indiwaat sénégalais ni seen Fallou daa jamono ji mu nekkee ci jal bi. naka la ko daan paase ak lan la daan digal askan bi. waaw moom ni ko daan waxee rek da daan wax naan ndax bis bii ñuy defal sëñ Touba moom moo ko woote fii Touba moo ne woon nañ ñëw di ko defee fii ndax li tax nit ñi di dagg billet di dem Màkka yaakaare leen fay yóbbu kon fii tamit ginnaaw fi la sëñ Tuubaa nekk nañ fii ñëw ci wetam di ko fi defee moom moo ko woote woon moom nag comme ni ma ko waxee rek dafa jëloon léppam jox ko sëñ Tuubaa waaw nekkoon taalibe bi sëñ Tuubaa nga xamante ni daawut gis kenn eh, di xool lenn ci yow lu dul sëñ Tuubaa rawatina ba ci njabootu sëñ Tuubaa gii ndax booy xool jumaa ji fii mu nekk doomi Serigne Touba yi rek ñoo ko wër loolu ci ab liggéeyam la moom nag dafa jëloon léppam jox ko doomu aadama yi xañ na moo tax suñu borom defal ko doomu aadama yi jox ko seeni xol waaw. ñun yàlla dafa def sëñ Cheikh Oumy di dox ba egg si Gàmbi ñu gàttanu ko fa teeru ko bu baax mu xool ne ñëpp tànn ma ne ma yaa ma doy teg ma ci kanam ne teg naa la jëwriñu sëñ Fallou kuy woote fii ci Gàmbi bu jaarul si yow du ma ko noonu la ko defee. te noonu la koy dunde waaye xam ngeen ne sëñ Cheikh moom ku bëgg sëñ Fallou la daf cay jeex takk takk takk si suñu wàllu ñun suñu wàllu bopp ci Gambie la mu fa defar tabarkalla defar na Gambie yëpp waaw wéetoon nañ fa néewoon nañ fa doole waaye fi mu ne tabarkalla waaw bëgg sëñ Falloom ak lig nangoo liggéey moo yaatal loolu day ñëw ànd ak ñun une semaine ñuy tourné te du nopp du sonn du tàyyi du dañuy toog sax ñun bëgg a noppalu mun a acca nañ leen def waaw loo ko naxee ci sëñ Fallou nag mu def ku bëgg sëñ Fallou ñun nag moom xam nañ ci dara. ba tey ñu des ci suñu maam sëñ faalu Mbacke. Mhm. daan nañ faral ci moom muy dégg dégg mu naan askan bi. Mhm. ñëw leen ngeen wax ma seeni soxla. Mhm. même bu ma ko mënul faj sama boroom dina ma rusee samay nopp ba fajal ko. te jamono fu mu toll jaxasoo na. xol yi daf tàppeetuñ ko. boo amoon conseil booy jax àdduna lan lay doon. waaw mooy ñu gën a góorgóorlu ci suñu bopp rek. góorgóorlu sa bopp nag da ngay fexe ba euh, defar sa jëmm ba ku la gis bëgg la waaye boo defaree sa jëmm ba la gis bëgg la tamit na nga defar sa jikko ba koo jaxasool du la mën a bàyyi ndax àdduna toll na foo xamante ni jaxasoo na lool nit ki nag booy fàttaliku sa bopp xam ne am na foo xamante ni fa nga jóge am na fu fu la sun borom jaarale te booy xool ku ci nekk am nga askan booy xool ci say maam nañ daan doxe xool ci say baay niñ daan doxe man jàpp naa ne ci lu baax rek ngay ngay ngay fas yéene dox ñun nag euh, daanaka euh, mën nañ ne ndaw ñi ci la sëñ bi ëppoon yaakaar kon man damay jàpp ne nañ fexe defar sun sun sun sun jëmm yi ba ku ñu gis bëgg ñu waaye nañ defar suñ jikko tamit ba ku jaxasoo ak ñoom du ñu mën a muñ loolu daal mooy li ma leen di euh, nu mu tuddati li ma leen di conseillé waa man it maa ngi leen di jaajëfal di leen santaat bu baax a baax ndax murit amul lu dul bis bii di sant tamit di gërëm di ñaanal suñu yaakaar suñu wasila tey ak ëllëg maam Cheikh Oumy Mbacké mu yàgg te ànd ak wér di ko nuyu tamit suñuy jëwriñ suñuy kilifa en commençant par le président du fédération Papa Babacar Seck suñu jëwriñ sëñ As Diouf suñu yaay booy Soxna Daba Sarr di nuyu tamit ak bépp jëwriñ boo nga xam ni rek suñ borom def na nga yor benn section benn liggéey ci biir kër maam Cheikh Oumy Mbacké ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal waaw waaw waa yaakaar jooju du tas xam nga ku toll ni Cheikh du faadal su ne am na yaakaar ci nit yaakaar googu di tas te ku xam maam Cheikh Oumy Mbacké xam ne yaakaar googu a du Fadal waxoon mu ngi ci moom euh, dama koy wax ne ko ñun yaay suñu moom Mamadou Fadal parce que jikko yi ñuy wax ci a du Fadal yëpp soo ñëwee fekk ko ci maam Cheikh Oumy Mbacké muy tabe gi muy taar gi muy yar gi muy lépp rek soo ñëwee fekk ko fi kon loolu rek la ñu ngi santaat bu baax di gërëmaat ñëpp di leen gërëm di leen sant di ñaan ren gi ngeen fi ñëw bu déwénee ne nangeen yokk ba yëg ko ci barakati maam Cheikh Oumy Mbacké di nuyu Samba bu baax moom kenn la ci ñun